acca xoyantaan Double Tyson ci digg géew bi xoyantaan Double Tyson ci digg géew bi Double Tyson ci digg géew bi mais Sirif Thiam yow tey moom sa affaire baax na lii lañ la sarax xoyantaan Double Tyson ci digg géew bi acca sarax ci digg géew bi cey bi combat bi combat laa ilaha illallah mbër ma saraxee ñatti walis ambak sirif caam ak malik oh. mu sarax la ko yow tam aca tey bi combat tey bi ana ñoo doxuy ana ñoo doxote ana ñoo dox tubu Tyson Double Tyson ci digg géew bi flagu His Excellency le président Adama Barrow délégation bu am solo ñoom ñoo fi teew ay ca ñu ànd ak mbër ci seen cumbukaay yi nañu wàññeeku ay ca mbër bu nekk ñetti nit lañu ko may ci cumbukaayam oh. ay ca na mi ànd ak ñetti nit ci biir géew bi ay acca fair play eh? fair play eh? fair play eh? na ñëpp génn géew bi fair play. Hey. Eh? fair mu nekk ñetti nit kese lañ ko may ci biir bi. nekk ñetti nit lañ ko may ci biir géew faaw ñu génn ci géew bi bàyyi ñaari mbër yi ñi dugg bëre Double Tyson na ànd ci cumbukaayam mu dugg ci géew bi xoyantaan ànd ak ñi bëre combat bi ñi ñibbi acca ayca Double Tyson xoyantaan ci digg géew bi ayca Double Tyson na ànd ak ñetti nit xoyantaan na ànd ak ci géew bi ñu des ñu dellu ci cumukaay bi acca acca ñu des lañ dellu seen cumukaay acca mbar bu nekk ñetti nit lañ ko may ci biir géew bi ñu des nañ dellu ci cumukaay bi acca waaw acca sëñ bi génn leen waaw génn acca génn leen génn leen acca mbar mi na ànd ak ñetti nit ci jumukaayam mu dugg mu bëree ñu des nañ del bu ginnaaw ana fire service red cross ana red cross ayca ai Ayca tan Double Tyson ci digg gaw bi waaw waa gaa ngi ñëw foofu woo nañ leen gaa ngi ñëw aca medix medix medix ana njawara na gaaw red cross anamu waaw aca ñu ànd ak xoyantaan nañu dellu ci géew bi eesa os yéen tam génne leen ñetti nit ñetti nit lañu wax aca acca kaatim bàyyi leen fa ñetti nit ñun ñëpp ñu topp rule for one is rule for all acca ambulance baa ngi ñëw acca everything is on record please acca acca aha waaw merci jërëjëf merci waa jef acha mbër bu nekk ñetti nit lañ la may ci biir géew bi acha acca ñeneen ñu ànd a xoyantaan dem leen ci ginnaaw ring bi esa acca cléaleel seen bopp acca may leen ñetti nit ñi des Yeah, everything here is on camera. So know that whatever is happening here is on camera. Camera is everywhere. So whatever activity, action is happening here is being recorded. It's been recorded, and if anybody wants to verify, the cameras will be available to do so. So do not waste your time. Let us resume. If you do not wish to do that, camera is everywhere, and we have recorded. Let security do their job. Everything is on the camera. You have nothing to fear. Execute your duties. You are here for that. Execute your duties to the maximum. Everything being done here is recorded. So let you not fear about that. Whatever you do is recorded. Anybody who's misbehaved is being recorded. You know, this is our land. We have to make sure security perform their duty. If you want to misbehave, your misbehavior is being recorded. Hey, be careful. Everything here is being recorded. So let everybody knows that whatever is being done here is on the camera. If you want evidences, we can provide it. iAfrica is covering it, Star FM is covering it, and other media houses. Every activity is being fully recorded, fully recorded, so nobody, nobody can fool anybody here. Perform your duties, that is what is expected of you. This is our land, This is our sports, we have to protect it. Aicha! everything is on record comme ni ko monsieur Dabo waxee sécurité yi nekk leen on standby ci ground bi nañ secure everything Double Tyson ak Xoyantaan ñoo sign contract ci Gambia Wrestling Association Double Tyson Yes, hello, hello. I urge the securities to perform their duties. This is our land. We are all looking up to you. This kind of rubbish will not happen in Senegal. This kind of rubbish will not happen in Senegal. So we must not tolerate it here. This is false. But Gambians will not go to Senegal and behave this way there. They will kick them out. So we must not accept this kind of rubbish happening here. Now everything happening here is in the camera. Let's protect our sports. Let's protect our unity. As simple as that. You must not accept misbehavior. Perform your duties. It is on the camera. If they don't wish, let them go out. Security. stand by leen ngir lépp bu tege si yoon Dubu moo sign contract ak Jabal Promotion digganteem ak xoyantaan la ñi ànd ak Dubu Tyson nañ bàyyi duubul mu ñëw lampli contrat lii làmb la ayca ref li yaa ngi wootee

Hello. The organizers, organizers, put yourself in order. Hoyantan has been in the arena for a longer period. If this is Senegal, victory is already delayed. If the other party does not want to come, give victory to the one still on the ground. That is the fairest thing that you can do to the spectators and the fans. If the Goda guy does not want to come and perform, give victory to Hoyangan because he has been in the ground a longer period. It will not happen in Senegal, and therefore we must not accept here. Thank you, Mr. Dabo Jerejef. Acha, loi yi fi nekk ci loxo Gambia Wrestling Association la nekk dinañ leen bàyyi ak loi ci li nga xam ne moo ñu fi dajale ci contract bi Jabal Promotion sign xoyantaan double Tyson la fii ci Independence Stadium bu ai chơi xoyantaan Double Tyson ci digg géew bi ay cë ay cë ay ca ana Double Tyson fair play la fansi ku ne na toog place ku ne na toog place am ku ne na toog place am security bi leen seen liggéey Security bi def leen seen liggéey ayca waaw Arthur! Arthur! Fancy! toog leen seen place ñi xaar ref lii ayca Maryland fungeni wache